jagleel ñi feebar journée mondiale des malades euh, Fatou Kiné Deme comme chaque jeudi euh, moom mooy suñu bàjjanu gox euh, tey nag am na portrait boo xamante ni daf ko jagleel ay xale yu feebar ñoom la ñu tànn ngir jéem a xool naka la ñuy célébrer bis bi nga xam ni képp koo xamante ni feebar nga jagleel nañu la ko. mi ngi noonu képp koo xamante ni feebar nga jagleel nañ la ko waaye nag feebar bi ñuy waxtaane tey mooy maladie cardiaque di feebaru xol moo waral Pape Cheikh ñu daal def ab portrait wax naa ko sànq jagleel ko ñaari xale jigéen yoo xamante feebar. feebar bi euh, dal na leen euh, ba ñu nekkee tout tànk ba tey euh, kenn ki mu ngi wëyal njàngam waaye ki ci des nag moom njàngam dafa mujje yàqu rek ndax feebar bi mu nekk nag jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dund bokk na ci bu ñu bëggee faju mu mu tëleen lool ndax léegi léeg loxo yi du jote wax naa ko sànq donc mu nekk loo xamante ni tey jii kilifa yi ñi nga xamante ne dañuy jàppale war nañu bàyyi xel bu baax a baax ci ñu mel ni léeg-léeg nga gestu leen ndax euh, seen feebar metti na Pape mhm. bu fekkente ne portrait bi yemb na mhm. mën nañu dem seet seeti portrait bi ñëwaat am fukki at ak ñett Fatoumata Sall fukki at ak juróom ñu bokk benn métit muy feebaru xol la. damaa demoon randonnée léegi si laa daanu léegi si ëllëg sa nag si sama yaay nag si leen ko kaw mu yóbbu ma hôpital si leen wax ko ne damaa am feebar bi. ma ko yëgee sama dënn bi dafay baatul dafay kii daal dafay bu foor pain saay tamit euh, mën naa damay daanu. depuis bi ma amee sept ans. ma ne la guddi encore di sëqët du mën a lekk du mën a noyyi noyyi bu baax. tamit damay sonn. ñaaña Thiam feebar bi teewul mi ngi góor lu di wéyal njàngam ute lool ak Fatoumata Sall ndax jàngoro ji li mu gàllankoor si moom bari na lool. bi ma daan dem jàngi bu may dox damay sonn duma mën jàngi di tardé jàngi mu jigi ma toog ba fi mu ne nii jàngeetu. de yàqal ma dara yàqal ma sama jàng. lu jëm ci wàllu faju bi nag ñuy jànkonteel ay jafe-jafe yu tar njëg li cher na. seeni waajur seeni loxo jotul seen ginnaaw. pinsaay sama papa dañ koy woo pour pour mu yónnee mais pinsaay du am te sama yaay moom mooy débrouiller wër pour pour pour kii jox pour ma faj. sama feebar bi li ma gën a métti mooy ñu ngi ordonnance yi seer na suñuy waajur amuñu xaalis te amuñu ko ñu dimbali. sama papa dafa retraité. sama yaay mooy jaay ci buntu kër gi. ndimbal ñu di ko sàkku jëmale ko ci jëriñ di dénk wàllu wér-gu-yaram ak ñi nga xamante ni waaye defal yàlla la ñu. sama feebar maa ñaan mu wér ak jàmm ñu jàppale ma daal que métti na de. maa ngi koy ñaax mooy ñun ñi nga xamante ne ñoo amee feebar bii mu jël ñu en charge. njëkk mooy bi nga xam ne balaa ñu lay opérer la muy garab les médicaments mu nekk aussi. Euh, Euh, rajo yi ñu war a def si mel ni échographie euh, ba léegi dafa cher si maladie yi te foog ñu xam ne maladie aussi amatuñu moyen. loolu dafay maanaam dafay nekk si diggante juróomi million ba ñetti million donc day xaw a métti si suñu maladie yi nga xam ne pour ñu ñëw sax def si analyse bi nga xam dañ koy fay des fois euh, am na si ñoo xam ne defal nañ ñu gratuité mais. dafay jafe pour ñu am paas bu leen indi donc ñun li ñuy def daal mooy dañuy ñaan gouvernement bi mu jàppale malade yi nga xam ni dañu nekk ci dëkk bi ci réew mi am problème xol. donc exemple bi la ci euh, ñaari xale yooyu lee ñu euh, jël leen ñu wax seen feebar feebar dafa metti nag ak bu mu mën ci doon. ak euh, xale yi li gar mi naan waaye buñ ñu rey waaye. Hmm. dañu dañu dañu daw yaram. lu nekk xam nga Baye Cheikh. soo xoolee ku feebar te mënuloo ci dara rek feebar nga soo ca manee dara sax feebar nga te bàyyi xale bii tey man di benn xalaat rek laa ci am mhm. ndimbal war na ci moom mhm. waaye man dama bëgg nu nu nu nu def ci benn stratégie parce que mi ngi tudd Fatmata mhm. ah? ñaari xale ñaari xale lañu mën nañu seet Fatmata yi nekk ci ci réew mi yépp ku ci ne ku ci ne daal sa Fatmata mi daal def ci dara. nga def ci dara waaw wallaahi wallaahi. sànni dara ci keesam rek. wallaahi booleeg yeneen dimbali. wallaahi xëy na dina tani. parce que manque de moyen. Mm-hmm. Baye Cheikh mm-hmm. moo waral lii. Mm-hmm. boo xam ne bii sa yaay mi ngi teg taabalam ci bunt bi. lu mu lekk rek la taal. te pàcc ma seer lool. baay bi manu ko. lay daw wala leneen leneen leneen. pàcc mi tamit nekk faj moo xam ne faj mu seer la. moo tax daal vraiment vraiment vraiment. il faut nit ñi jóg di jàppale. ba pare ñu mel ni ñoom ñaar bëri bëri nañ ci réew mi ah ñu bëree ngi faatu ci seen i feebar ndax ñàkk moyen. ñàkk moyen ñu bëri ñu ngi faatu Pape Cheikh ndax euh, ñàkk moyen ni ñu ko waxee euh, feebar la boo xamante ne li muy laaj ci koppar bari na. 3 mhm. millions. Oh. jëm ba juróomi millions. kooku du ku nekk ba am. donc parce que parfois dinañ egg foo xamante ni il faut ñu opérer leen. Mhm. donc du coup xaalis boobu bu fi nekkul nan la ñuy mujjee. Ah. Mhm. yenn nee nañ yenn analyse yi sax yi nga xamante ne war nañ ko def. duñu ko mën léeg-léeg sax nee nañ pour ñu am paas pour ñëw def ci seen i analyse daf leen di të. metti na donc ku amul paas boo defee analyse doo mën a fay analyse. Mm-hmm. Mm-hmm. donc je crois que sensibilisation bu am solo la. Mm-hmm. te man euh, foofu damay gën a interpeller euh, ministère bi yore wàllu wér-gu-yaram dëgg la sax ay jéego ñu ngi koy def. parce que ni ñu wax la santé a un coût. feeb euh, faju mënta mënta gratuite ni ñu ko bëggee. Mhm. mais nag léeg-léeg aussi xëy na subvention subventionné yenn yenn garab yi dina ci baax parce que garab yi léeg-léeg moom mooy cher. Mhm. donc bu ñu subventionné garab yi dina tax ñoom léeg-léeg dinañ am moyen possibilité euh, euh, jënd seen i garab. Mhm. comme également am na ñoo xamante ni yàlla wërsëgale na leen dara. donc ñooñu nga cof ci as tuut génne ci du la wàññi dara boo ko mënee mm-hmm. donc je crois que daal il faut ñu ñu gën a bàyyi jox gëdd li ñu naan humanitaire mm-hmm. taal sa oto dem ci buntu hôpital de temps en temps du ñàkk nga gis fa ñaar ba ñett ñoo xam ni mën nga leen dimbali ci njëndum garab mbaa fay lu ñu fajoo dëgg la mais moom mooy mooy mooy initia eh, dëgg la bi nga def rek mm-hmm. ne sama anniversaire bi bëgguma ci dara lu ñu ma jox dama koy dama koy delloo xale yi loolu mais loolu moom moo war a am ci réew mi bari na xew-xew yoo xam ne day xew ci réew mi les grands anniversaires yi nu fi def. yii nekk Sorano. yii nekk Grand Théâtre ku ci nekk war nga am pàcc boo xam ne bii la fay ruus. nga nga am ñu am kees goo xam ne dañ ko fay jël. du ko dugal ca kees yooyu. pour mën a dimbali malade yi ñi ko soxla bëri. waaw waaw ñi ko soxla dafa bari lool. Baye Cheikh démb rek am na kenn ku ma fëgg sama kër. bi mu ñëwee ba jàkkaarloo man yor këyit yi. fekk may bëgg a julli mu ne ma jullil ma ne ko man mënut maa julli. wallaahi ndax da ngay jaaxle. mu wax ak man tàmbali damaa wéeru. parce Mm-hmm. bàyyi Cheikh man bëgguma non c'est non barke yonent bi wallaay doo bëgg dégg yooyu mi ngi ma seetaan xam naa mi ngi ma seetaan dama kii boitre la mm-hmm. wax ma ci wax ma ni ma ko dama léegi te duñu am duñu am jaa ngi bëgg a jox ma ne ko soxna si waxal waxal mu gaaw defe na ne sax damaa yàkkam ci ndax li may wax bëgguma dégg loolu parce que moom am na ñoo xam bu ñu déggee feebar ñoom jaaxle nga da ngay feebar kay dañuy maraat ci tàng tàng bi kon dëgg dëgg daal nañu jàppale xale yi mm. te nag pàcc meeg yooyu ñu wàññi ko mm. seeraay bi subvention yi waaw ñu def ay subvention nag nañ def subvention yi waaw subventionné ko parce que ñoom je pense que am nañu association benn hôpital bu ñu musoon dem defi reportage mm-hmm. boo demee ils s'organisent pour jéem a ku nekk respecter sa ay rendez-vous respecter euh, rajo yi nga war a def garab yi nga war a jël mais mm-hmm. comme tu dis opération bi nga xam ne moom nga mun a def pour wér mm-hmm. carrément ça coûte hyper hyper cher soo fa demee ku ci nekk da lay expliquer pendant combien de temps la am maladie bi yan effet la ko def man amoon na sama benn mbokk bu ma demoon fekkoon ko foofu xàmmee ma ko sax en fait maa ngi jeex jeex jeex ba nga xamante ne je me disais kii moom la wala du moom. Mm-hmm. et finalement mu ne ma man la j'étais choquée. Mm-hmm. nga gis feebar bi nu mu méttee nan lay transformer nit bi. Mm-hmm. voilà et que tout le temps il faut des moyens pour jël garab yi pour def analyse pour faju carrément pour wér pour mun ci génn donc bu fekkee yow yoroo ko wala sa mbokk yoruñu ko peut ñu essayer ko subventionner. def que tant de pour cent dootoo leen ko fay comme ça beneen mm. pourcentage bi ngeen jëm en tout cas ñu jàppale leen ah muy nguur geeg ñi nga xamante ni ñoom la mm. suñu borom baaxee euh, teraanga euh, Fatou Kiné laataa ñu lay bàyyi nga dem barki démb euh, ingénieur yi nga xam ne ñooy liggéey ci hôpitaux yi doon kaas dégg naa tey ministre bi dina leen recevoir c'est ça waaw dina leen recevoir mu nekk information boo xamante ni jot naa ko mm-hmm. dina leen recevoir après midi bi lay doon cabinet bi dina leen recevoir mm-hmm. te ci femme ingénieur boobu. Mhm. donc ñu nekk ñoo xamante ni ñu ngi def liggéey bu am solo. Mhm. ndax tey mënoo dugg kër docteur te dafa fekk jumtukaay te jumtukaay yooyu ñoom ingénieur biem bio biomédicaux yi ñoom ñoo koy toppatoo ñoom ñooy def lépp lu jëm ci wàllu euh, maintenance bi ak yooyu te pourtant booy xool seen payoor demeewul noonu donc mu dem ba nga xamante ne dañu jàpp ni seen métier mi boo sàgganul dana naax saay ndax fi mu ne ñu ngi leen di soofantal te ñu bari ci ñoom ñi ngi am euh, idée bëgg dem bitim réew defi fa liggéey bi mhm. te mu a mën a toog seen dëkk def ko fa donc je crois que ñooñu également lu ñu leen gën a mën a jàppale. Euh, dina am solo ndax euh, jumtukaay ci ci ci ci ci barab fajukaay lañ koy fekk. te jumtukaay yooyu lépp lu ci maintenance ñoom ñoo koy toppatoo. Mhm. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax Fatou Kiné dem ci ndimbal loolu le ñu bàyyi la nga daw li liggéey beeg euh, rédaction bu télévision Futur Média merci.